ci football mo ci am victoire dafa am mu neex boko amé day neex match nul nak dinaa ne neexul nakariwul mais ci digg bi la nek mais défaite aussi moy gëna metti wa yalla dimbal nañu tay match nul la ñu am dañuy sant yalla c'est vrai que ni match bu ñu téye la bëggoon ko gagner parce que je pense que def nañu li waroon yëpp pour gagner ko mais après mu ne football mom tant que jeexul jeexul jël nañu bi bo xamné mënon na ñak presque à 3 4 minutes de la fin lo xamné mënon na ñak mauvaise appréciation mënon na sax amna na faute ci action boobu parce que télescopage bi ko gis mu na am faute mais après jël nañu bi bo xamné parce que nekkul ci match bi mais après il faut rester calme apporter les correctifs pour moi, après le football Allez, quoi vais faire un voyage vous dur Un match vous mettez, mais bi ñu ñëwee un wuñu fayda et puis vous avez tamit On sonn On fayda mais après c'est des détails qui font la différence c'est un petit détail on prend un but après c'est pas grave c'est le football ça il faut rectifier parce que je pense que nous avons une bonne équipe on a un bon groupe maintenant il faut faire confiance aux autres et apporter les correctifs préparer le match contre parce que match est capital la ndax coupe premier match dañ demoon nous nous. gagné nous loolu la yàlla dogal après ñëw nañu ñun ñooy recevoir fii dimanche te ñu ñaan yàlla ñu gagné match boobu pour nekkaat ci lancé bi parce que amuñu droit à l'erreur ndax boo bëggee sori ci compétition boobu fa nga gagné donc dinañu gën a concentré wu gën a ñaaxale ñu gën a concentré comme ça ñu préparé lii di ñëw incha ñu géem a gagné duggaat ci loolu championnat bi nag yaatu na gudd na mu ngi suñu kanam amuñu dara ci football ay parieurs ñëw fii di sonal nit ñi parce que équipe nii nii équipe bi gagné nit yoru ko yàlla ko yor da ngay football di gagné di match nul di am défaite barki démb Barça dafa joué Las Palmas moo ko gagné Barça ay ndaanaan ñoo fi nekk budget bu réy la ñu am football da ngay perte naka nit ñi d' accord duñu ay yàlla duñu yonante dañuy fubal ñuy gagné ñu ñuy match mais loolu dafa mais loolu su amee dañuy ànd dal ñu xool lu ñuy corriger pour aborder dem ci kanam mais bu fekkee da nga match wala da nga après wax day bëri après benn moment tu mets la pression sur les joueurs tout le monde et bi dañ ko ñaanal parce que équipe bi mu ngi mooy représenter Sénégal donc tey ambassadeur bi ñu am tey mooy maire mooy jaraaf a am gisuma lu fi jar wax ak wax on est à un point du premier joué nous six matchs trois victoires trois nuls dara amu fi. yalla. yàlla ñun ay entraîneur lañu li war correction Nous ñu war def on va être serein et calme on va les apporter tranquillement et sereinement te l'équipe de bi dina rebondir dina dem ci kanam Inch'Allah. merci.